Cocktail, une explosion de saveurs dans une même et seule bouteille Fuyep, yep, sommes ñu jëmbatee ko Sénégal si anam yo sell naturel buy bi nag day wàññi tooy baax si yaram tayit yi bi oh. oh dina yok sen katan bolé si vitamine rek la ñi bëgg so naturel nak vito soo accident pour fête bu monti doon te baax lool si yaxu gune ak ma lépp nak emballage civilisé Tour. ak jus vito da am choix te ñu déféré ko fi ci Sénégal si anam yu naturel te sel disponible partout au Sénégal vito jus fabriqué par Groupe Cefas à Dakar à la cité cœur Damel à côté de la mosquée téléphone 77 241 06 06 vito jus le jus fait maison bi nag mu ngi progressé pour man vidéo bi doxul mais gis naa ko fa bari ndax dégg naa ci ci sax ma sàcc wax la nga baal ma am na fu ñu koy dugal ci ci ci ci internet bi am na fu ñu koy dugal dégg naa da ngay fayee ko xaalis bu bëri da ngay bëri wii waaw loolu loolu bu amee kay loolu alhamdulilah loolu kay ñaan ko nangu sonal borom mais dafa vidéo boo xam ne ñëpp war nañ ko gis parce que loolu sama sama sama sama secret de vie léegi li ma bëgg mooy loolu jarul laaj soda mam ma looy waxati laaj loolu jarul laaj soda mam ma looy waxati loolu jarul laaj soda mam ma looy waxati laaj loolu jarul laaj man filmel filmel ay waay ay film ces ca digg bi ca digg bi ca digg bi si réew ci nan noonu. Ah, booy booy bi ñëw pour ma yow da nga leer booy bi di ma wax ay affaire joobu xam nga nga koy utloo affaire yooyu man waa dem saa yi nu mu demee nii tegal booy bi. tamit yaa nga gën a xam ni booy léegi moom mooy loolu te booy bi li ma la waxoon rek bokk ci samay élément dama def samay démarche ba jot ko. Mm-hmm. fu ne dugg naa fa nag avant ma kaa gis avant moo ñëw rek lu ne daj naa ko yaa ngi dégg te man gëmloo naa ko affaire liggéey tuuti ah mais li tax ma gëmloo ko loolu dama xam sa jikko dama xam ne yow gaynde nga dama xam ne yow mooy loolu kaana nga te xam naa ni booy bi su ñëwee day metti rek mais balaa génn gàll bi di nga ko ñam loolu leeroon na man xam naa nag sonn nga avant nga kii parce que mu ngi la doon léebal di la wax loo xamante ni xamoo fu mu jógee parce nga jàpp ne ngay ñëw rek kii mu jàll mais xam naa say pexe say bagage affaire yooyu noonu maa gëm loolu loolu de. moo taxit booy booy balaa maa am ci moom dara booy dama sonn muy xam nga def serveur laa woo laa woo mu mun a dorogeel booy bi. waaw. damn loolu moo fi sës booy pour mun ko time kon yow ci doro nga mujjee. ah tamit boobi dafa loo wax mooy mu ne ma non junior patati patata affaire u liggéey man damaa joobee noonu boobu awma temps maa ngi bëgg dem lijjanti leneen. non yow yow baa doolo nga. Ah. yow ni nga li nga li nga def yow nan nga ko mënee. lu ma def yow xamoo li nga def yow war ngaa toog fi naan lu ma def xam nga la moo gën a bon si nit ku ñuul. Hmm. day def xam ni moom def na ba pare ñu koy wax nga naan lu ma def xamoo yow loo def. nijaayu nijaayu meretu bi ñëw fi tase yow fële xaw ma fan nga tase ak moom xaw ma lijjantiwuma ko ngay mubboo sama tur naan ko yow yaay saala nga naan ko ay léegi naa la jox ay birigëg ay yu kenn xamul wax fa wax joo xamante ni kenn xamul tas yaakaar nit xam naa ne moom keroog moom bi fi ñëwee wur na yàlla bu amoon crise cardiaque wur na yàlla day dee nu ne nag dee na ku ko rey ndeer wala saala xam nga lan nga mooy bu sa problème da ngaa ñàkk fayda am na yenn yoo xamante ne kenn du ko def. stratégie la. stratégie. Saala yeewul faw nga nite yow li nga bëgg si diggante yaa ngi mareetu faw nga am stratégie tic tac te je faw nga am joxamaajoo joxalee boo amul joxamaajoo joxalee li nga bëgg yow doo ko am. luy loolu luy loolu. waaye joxamaajoo joxalee gi kay xam nga ko. mooy lan ping pong bi. après yow affronté na ma. waaw ni ma yow ay saala. waaw ma nangu ko acceptel ko ni ko man maay saala. da ngaa xam la ma sa jublu. loo sa jublu. voilà du dara. très question. très bon question. saala saala nekkal ma ma nekkal la saala bu ma la nekkalee faw nga nekkal ma mënuma la nekkal ba pare te mënoo maa nekkal c'est impossible. Lui français n'a wa na je je ma imposé c'est jëm ko tu ma imposé ça la nekkal comprends non? vais dama ko te ben dil bo xamanteni il fallait man ko man la sala pour man mo xam mom la la la ci bu ko amna fo xamanteni ni bu la newone yaay sala nga ko rek du bax dil bi day ne ma yow sala man ko wa mo may sala mu projet mariage bi ba ma ni ko xam nga lu tax ma tuddal ko ni ko un million laa lay jox pour yàgg mareetu seen diggante moom mu dox ci. mais ana booy bi léegi moom foo ko bàyyi. booy bi auberge laa ko bàyyi bu yóbbu ma ko sama gàllay auberge ko yóbbu bàyyi time ko xam nga seey xaw ma yeewul xaw ma yeewul booy yooyu bu ma ko di defati faal booy. booy bi da ko door a gëmee. yow loo bëgg booy. mais yegg na si kawam rek. instant firi booy. naajo bu dëgër la wala. lan booy booy bi teg mu jàll la. teg mu jàll <laughs> noonu la parce que booy léegi moom loolu la ñoom ñëpp dañ lay lalal basan quoi. te mooy loolu. booy bi soo déggee ay waxam da nga naan kii xoolal musul flirter ak jigéen ak góor booy. booy bi di ma théorie booy di ma xutba. garaaw garaaw billaay wallaay mais booy bu mu ne jalang booy damaa teg rek egg Ndakaaru njaay <laughs> billaay wallaay. péage nga yor nag. Hmm. <laughs> au moins bi lañ daaj. ko loolu la fa demee booy. booy bi rek moo tax doo taxaw fenn. mais nag gaynde. waaw ndagam demee na noonu. sooglu nga def nga li ngay def ba pare. sa waaye tamit mu may kar kar yi xam naa ba tey yëgagul li xew. mu may woo rata mais xoolal mënuma ko jël mënuma ko jël parce que xam nga rek su ma ko jëlee rek instant bii mooy loolu. dama daroon doxaat ci kawam de. dama naroon jëlaat booy bi yóbbuwaat ko ci moom lekkaat mu ni. booy mais. booy yow lay teg diil bi xoolal ba mu ko simee mu set dama ko vidéo for envoyé naa ko sama sama mooy loolu man bii laa sa waay fët fët mu dugal ma sama xaalis. ñu def comme ça booy bi. waaw yow booy. sa waay su ma ñëw rek ne ko laal naa booy bi nii du ko gëm il faut moom ay preuve preuve laa ko envoyé. waaye yow vidéo booy bi nga jël envoyé ko kan nga ne. booy sa pour mu xam ne yow time nga booy. kese mais sax loolu bàyyi après fi mën a mujjee. booy du mujj fenn sa ragal la amul fit leer na ma bu mu xoolee vidéo yi da kaa supprimé booy bi instant yii xoolal. Ah, façon daal lu ma la mën a xamal mooy junior du dara li ma seekoo na yow def naa ko bul doon ngaaka. booy man xaw ma la. noonu la demee dil bii xaw ma la. léegi lii des xam nga ko. bu jaaxle fekk ngoon saa yi su ma dugalee ma viré la. loolu bu ragal loolu te xam nga ne maag yow xaalis. Eh. kii wu ñu. gaynde waaw mosuñu sekk affaire yi dama la daan indi sama élément heure bu la neex nga may jox cóolu business bi du boobu fee nekk nga naa ma ay ngi tamit. te maa ngi dañoo mos a am problème ah, kon nag am xam nga loolu rek boo ko teg. yow su ma la nee demal ba weer bi dee sax waroo see teg baax booy. bokkul quoi parce que dama am fu mu jóge te booy bi ni ma def ba indi ko fii boo ko xamoon doo ma xaar de. booy may jox léegi ma dem sama yoon. booy amul ragal fii ngoon ma jox la. mu fa demee nii rek ak xam nga weekend bi tay bi xam nga banque yi dañuy tëj mais su nekkoon loolu léegi dañuy ànd xam nga. ok ma viré la mooy loolu. maa ngi ñëw dem. ay waa dara yow après rek. booy jox nga ma ndam de. dafa neex de. booy jox nga ma ndam booy. boo ñàkkee xaalis pauvre ngay doon te pauvre du nelaw. noonu la fa demee booy te mag bu amul xaalis xale la booy ñu déggoo ah eh, pour mu gaaw. sa intérêt la. Sall faw nga ceeb sa mayin faw muy mbalax. faw nga dégg ni Youssou Ndour boo déggul ni Youssou Ndour wala déggoo ni Wally Seck rek doo dem. lu leer laa la wax. du ma waykat nag. ah du waykat. dégg ma du ma waykat. mais ñoom dunoo dégg. ay waykat lañu. voilà li xam nga ñuy def. maa ngi dégg dama laa bëgg a defal surprise. ban ay ay surprise ban surprise Saara du ma la wax surprise ban surprise yow nga na a nga may surprise lan lan lan loo foo toj. ak yow lan ba lan mooy sa projet ak yow lan nga war a génne lépp mu war a doon surprise boo xamante ni nit ki si mën a am mbégte wala moo kontaan si lan lan kuy dem di ñëw mooy indi surprise nit ki nga ko surprise ma gëm la mais yow doxoo si dara waxoo si dara waalu nga nekkee ak lan ak lan te dëgg nelaw ban surprise lan xanaa neew ma da ngaa jënd oto wala neew ma da ngaa jënd kër wala neew ma da ngay takki jabar takki jabar sax moom waxaale wu ma ko nax moom ku dul génne doo takki jabar waaw ma xam naa ne moom sab takkub jabar moom noo du gaaw. da ngaa nee na. waaw xeeb nga xal. Hmm. mu sa dàgga. Ah. <laughs> Ah, na. saala man lu may lijjanti ak fu may dugg ak lu may làqarti mënoo koo xam. Hmm. maa lay defalal tey loo mësul fooge si sa àdduna. lo musul khalat ci sa aduna kan yow lo japp ni li muso khalat ni dina am kan yow paré nga lan paré nga paré na mais yow say wax dama dugul du gem wa dama ni laj paré nga paré na tu es disponible kan tu es disponible toi yow waaw tu es disponible waaw paré nga paré na ñu jël affaire bi dugal ko nga top ma jël kay fé eh vé ici kay vé ici kay dugal ba nga xam tay danga may sonal rek yow waa baax na dafa nànk rek dafa nànk rek dafa nànk rek ah jarul tëj dañuy def waaw ah, kon naa ko bàyyi noonu ah. kay kay bi ah. nga xam ni tey tey rek la tey suba ay nettali lay doon pare nga surprise laa lay defal kaay fii laa koy commencé tax si surprise non teel na teel na ah si mbedd mi ngay tas samay bët. tey eh, nan dem rek fii fii laa dem rek dem dem. surprise. teel dégg dafa teel. dafa teel nan eh, dem rek. nday surprise bi. saa dafa teel ndayam nag nan dem rek. non may nangam tàng li mbedd mi ñi surprise. di la jay ak ku lay dugal te di la jay boo boo boo boo wayul rek réccoo ki jooy feeñ ca kanam oh ku yaa yooyu ah, ah. oh oh père hmm. waaw lan la mbaa jàmm waaw man daal damay miir miir dama naaj bee tàng naaj bee tàng naaj bee tàng wallaay wallaay te yéen damay miir waaw te yéen maanaam wéroo leen mais ngeen di dox rek massa massa amoo crédit ma sama doom ji sa doom waaw ah pour mu jël si la ma ko ma ko oh massa naaj bi daa tàng de oh am dugalal numéro bi nga woo ko massa oh. massa massa dugalal ma ni wala nga ma wutalum ndox ah, ndox ndox ah ndoxu naan ndox mar naa loolu waaye daa mu soog xanaa ma dugg ci gaale bi lijjanti la ndox nga naan dégg nga ko ma kii un bi wala deux bi un yow doo bandi sax yow yow yow doo wuyu yow xamoo ni yow liir naa sa say diplôme. bul xëppi de bul xoole waaye ba ma ne la xëppil nga xëppi bul xëppi de bul xëppi su ma compter ba trois rek un deux trois bul xoole de bul xoole ñebal ubbi say nopp firi say nopp guddalal sa baxat fattal say yeux surprise xooleen saala e sa sow sa jooy daa rafetul dara e saala par dama lay génn de boo fi na dama lay génn de damay yàq surprise bi de non mu jooy bëggoo rek. yow hmm. ma sa jooy waaye yow sa jooy daa rafetul dara bu rafetul tax garaawul. <laughs> eh eh Sala eh eh ne përal pas nag eh eh xol bee sedd xol bee sedd xol bee sedd. surprise laa ko ko defal. dama koo yor ni ko ah. naa la ko de waxoon naa la ko de waxoon naa ko de naa la ko de man maa mën si bii boor. mamen sebe bor walu joju ije nak nopi kotana hmm ben yalla la yalla may félicitation degguma ko félicitation der oui ano ma jégué sax merci beaucoup <laughs> wa ba joy xam nga ni def xam nga ni def der wa merci c'est posé wala ni nga ñaké yow nak nak sala ma kontan wa ba joy disposé disposé fa <laughs>

su ma ko envoyé ba noppi connexion ba waaye gul connexion ba supprimer ko supprimer he illaha illa eh waay waay Fall waay ah Fall lii la def subhanallah eh waay Fall yow nag yow daa supprimer ga papa masa ah. de oh gars yi moom buñ la kiiwu duñ la mën a jox jot nga ko jotuma ko jotuma ko naanal ba pare ah. o tàng ah. tubaarkàlla waaw baax na baax na baax na oh baax na baax na waaw jërëjëf waay léegi gardé vidéo bi pour boo maree rek dégg nga waaw yaa ma ko may waaw ok jërëjëf jërëjëf jërëjëf waaw tur bi Adam, adam adam Adam, Adam, waaw Adam, xam Adam, Adam, Adam, xaw Adam, adam Adam, Adam, Adam, Adam, ba Adam, kanam Adam, Adam, dem Adam, Adam, Adam, Adam, Adam, Adam, na la Adam, fay Adam, Adam, Adam, Adam, si Adam, si Adam, Adam, Adam, bu mag bi Adam, Adam, Adam, Adam, Adam, Adam, bu Adam, Adam, ko travail Adam, Adam, du ko Adam, di Adam, Adam, Adam, Adam, téléphone bi ci Fall loolu laa waroon a yóbbu ndax heures la ma ci jox wax ndigal rek ma ñëw dem kër. baax na ba ngeen xuloo waat yàlla ngeen xuloo yàlla ngeen xuloo eh Saalum yi gel la bàyyi si buntu kër gi. i ah, eh, waaw waa baax na. dugal mënatoo yàq <laughs> moo day soof rek li yoo ko métti. ñu ngi day ñu wuy ma def nga lu baax kay ba pare génnal da ngeen may génne. ah mais def nga lu baax kay ba pare génnal danoon namante woon kay ñu namante ko. toogal waaw toogal. tooguma ndayam ay kon de génnal ndayam moom ku la génnal. ñu yàkkal nag doo dem ngir yàlla. si yow yàlla ngeen xuloo. waaw ah, ko mbéj. <laughs> mais. mais yow daa mel da nga ko kompaloo ak moom. daa non déglul déglul daa mel ni da nga ko kompaloo moom. kompaloo ma ak moom dara. yow mii Nder am na am na loolu comp mais lii est-ce dëgg la. dëgg la kay dañoo namante woon rek xamante ni man est-ce que géntuma man ñaari yoon nag nii may gént. da ngay gént wala. dëgg la. yaa ngi gént wala. bii de yëg naa ko moom. moom oh, nii c'est réalité ni ndeer moom moo dox affaire bi. ah waaw da ko see boole rek pour mën a xam naan boo xam it ko du dil sax. moo ko dox ñu jàppale lu du dil dara amul. mais tamit def nañ lu ñaaw fi. Hmm. ndeer ñu ko. wala daa <laughs> duñ jëkk wummi bi jeex na de bu ma demee kër ga du ma doy duñ ko woowaat mais lii def ni baaxul de génn ma damay dugg eh! ah day yomb <laughs> day yomb génn ma léegi xam nu ñu def kii eh. xolam dafa sedd tey moom du ngeen dem da ngeen di yend far foos waaw dañuy yend loolu garaawul dañ la doon tooñ rek dañ la doon tooñ rek tooguma damay dem ah! <laughs> jeex na de yow doo ñëw toog sedd ñu naan garaaw lu ma garaaw méttiwul demal may nga may ma ndox sedd maanaam li ma sol maa ngi bëgg a dekk tàngaay bi la kay